الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله الواجب على المسلم أن يعتز بإسلامه وأن لا يشارك الكفرة اليهود والنصارى في أعيادهم وفي احتفالاتهم ولا يوافقهم في التاريخ لا يؤرخ ولا يقرهم على الدخول القرن ما نقوله اليوم دخل القرن العشرين وهذا كله موافقة للكفر بقيت الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom di ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi xam ngeen ne tey ci guddi yi nu nekk ci sunu réew mi di Sénégal nga xam ne ñoo ngi wax quatre-vingt-quinze pour cent yépp ay musulman lañ waaye loolu boo koy xool di ko nat da nga fekk lu ëpp ci nit ñi ci seen làmmiñ ñi rek la yem ndax réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman lañ ba pare ñu fay organiser ay Noël de l'enfant Noël d'enfant jël benn place dajale fa xale yi fas yéene faa dajale xale yi ci mooy yàlla ay jullit yu jënd ay ticket ba ticket yi jeex ba ñuy renforcer waat jullit boobu jënd ticket bi romb na mbokkum jullitam bu feebar soxla ordonnance romb na mbokkum jullitam bu amul lu mu lekk ndekkiwul kële añul kee reerul kee amul dëkkuwaay kee ngi ci jafe-jafe kee ngi ci coono moom mu romb lépp jël dix mille francs am dem ba grand théâtre ne day mooy yàlla jënd ticket pour sama doom na mooy yàlla moo ki muy àndal nanu ànd mooy yàlla te wallahi alazim buñ doon contrôler loolu ña dem foofu jënd ticket ña ci ëpp duñu ay chrétien ña ca ëpp duñu ay yahud yenn wàll gi yëpp ay jullit lañ ñooy wax laa ilaha illallah ñooy wax muhammad rasulullah est-ce que nekk jullit ci waxu kese la ab jullit pas pas la looloo tax boroom xam-xam bi ne alwaajib ala al muslim an ya'tazza bi islaami jullit dafa war a tiitaroo diine yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moom da yàlla da koo yónni woon mu wuuteeg yahud yeeg nasaraan yi ab jullit du feetu 31 décembre waxuma 24 de parce que 24 moom ku koy feetu yéeféer la ndax yéeféer rek mooy feetu 24 31 décembre rek laa wax ab jullit da ko dul feetu parce que du sa feet parce que dafa bokkul sax ci sa année jullit ab année mooy hijriya loolu Seydina Omar moo ko def ñun dañu war a xam ne dañu war a xam li nu moom xam li nu bokk xam fu nu war a tàmbalee ak fu nu war a yem waaye nekkuñu nag ñuy tëlëlali di dem ñaata kilifa tey ñaata jullit ñooy jëndi ginaar ñooy feet feetal seeni doom waxuma la feetal seeni doom waaye ñoom seeni bopp ñoo bëgg a feetu rek di ko layee xale yi nga defa ne xale bu am juróom ñaari at tàmbalee dem grand théâtre kooku bu amee ñaar fukki at lu muy mel xale bu am fukki at laa wax wala juróomi at tàmbalee dem grand théâtre kooku cim réew bu fa amee fanweeri at lu muy def lu muy def lan lay nekk ab julit déedéet ab julit doomam du dem grand théâtre ab julit laa wax doomam bu gëm yàlla laa wax di tiitaro sayduna muhammad gëm l'islam xam fi mu bokk doomam du dem grand théâtre waxuma laa di jënd billet julit day tiitaroo l'islam julit mooy koo xam ne laa yusaarikul kafarata al yahud wa nasara fi ayadihim julit mooy koo xam ne du participer benn yoon ci luy daaneel lislaam abadan jullit foo ko fekk naqaram wala mbégteem mooy luy dundal lislaam naqaram mooy luy daaneel lislaam dinda mbiram mooy loo xam ne su ko lislaam su ko defee rek lislaam avancé yal na yàlla dooli leer Cheikh Ahmad Bamb mi doon wax ne al wayl kullu waylun liman maa layla nasara ndeysaan bu duggaatoon tey ci kaw suuf ba fekk réew mi nga xam ne da doon xeex pour réew mi waa réew mi day ñoo gàddaayu ànd ak nasaraan bi allahu akbar dañuy tagg sunuy sunuy kilifa lu bëree bëri bëgg leen lool waaye wuuteeg ñoom ci ay pas-pas ak jëf wuuteeg ñoom ci ay pas-pas ak jëf ixwatal iman yéen mbokk yi ci yàlla ab jullit dafay am fierté ne man ab jullit laa mu xam fi mu bokk xam lim moom xam lim war a def ak lu mu war a bàyyi ab jullit dañ la sant nga yar sa doom ci lislaam dañ la sant nga encadré ko ndax yàlla la jox doom ji waaye yàlla joxu la ko nii rek pour bàyyee la ko parce que ëllëg daf la koy laaj wa mal maalu wal ahluuna illa wada fala budda yawman an turaddul wadaaye yàlla daf la jox doom ci góor la wala jigéen yàlla daf la ko dénk wallahi bisa ngi ñëw nga taxaw ci kanamu borom bi yàlla mu ne la doom ji bi ma la ko joxee foo ko jaarale woon ab aaya alquran dafa wàcc ci suratu tahrim borom bi subhanahu wa taala mu ne ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara wa quduha annaasu walhijaara عليها ملائكة غلاظ سداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آية بم واتي أم صحابة بكو ديك ريك توك دي جوي صحابة الكرام لاج كو لوي جوي مو باña wax ñu laaj ba sonn mu baña wax ñu dem boole ji koog yenent bi alayhi salatu wasalaam ñu ne ko diw de démb bi mu fi jógee ba léegi mi ngi jooy yonent bi ne woo leen ko ñu indi waa ji mu toog yonent bi ne ko yow luy sa mbir dégg naa biig ba léegi bi aaye bi di wàcc fekk la fii ci sama kanam bi nga delloo ba léegi say rongañ farul mu ne waaw waaw yonent bi ne ko lu ko waral mu ne ko ajaztu an nafsi wa kulliftu an ahli yàlla dane woon man ma góorgóorlu dugal sama bopp aljanna dugal sama njaboot man sama bopp rek pour ma dugg aljanna problème la yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw loolu mooy duñ dugg loolu da lay jooy allahu akbar waaw kooku moom de moom xalaatul dem grand théâtre di jënd bii la ilaha illallah kooku de xalaatal organiser doomam fête jaxase góor ñi ak jigéen ñi ak sàngaraak sol gu bon ak lépp xale bu ndaw bu toll ci yar xamal ko yàlla ak yonent nga tàmbali di ko yóbbu ci ay fête fête boo xamante ne feetu ñan la feetu kan la lan la ñuy feetu feetu kan la feetu ñan la lan la ñuy feetu nga tàmbale yóbbu xale bi foofu boo waxee ñenn ñi tubaab tubaab lu te duñu ay tubaab du yàgg ba nu nekk ay tubaab naan nooy foog ñu kontaan loo xale yi fekk ñu bégloo leen amul lu nu war a bégloo nit lu dul ci mooy yàlla amul lu nu war a kontaan loo nit lu dul ci mooy yàlla boroom xam-xam yi dañuy wax ne xëy suba sax di ndokkeel nit ci weer wii naan ko bonne année yow dugg nga ci ak kéeféer waxuma laak nag nga dem fekki fa nga dem fekki leen parce que xam nga lan moo indi ñu indil problème mooy ñun suñu pas-pas la ñu xamul xamuñu suñu diine yonent bi yàlla yónni woon lépp lu mu fekkoon yahud ak nasaraan di def daf ko def leneen dafa fekk ñuy feetu samedi ak dimanche mu indi aljuma mu fekk leen ñuy julli di jublu baytul maqdis mu jublu masjidul haram mu fekk leen ñuy fecc samedi ak dimanche mu ne leen woor leen ko yéen julli di mu fekk leen bu ñuy nodd ci seen jumaa yi ay cloche la ñuy dóor muy kenkengi wala ay béjjën la ñuy ëf mu ne leen yéen jël leen nodd mu fekk leen ñuy wat seeni sikkim bàyyi naanu yeeg sikkim yëpp yuuru mu ne yéen jullit yi wàññi leen naanu yi bàyyi sikkim yi wuutale nag ñoom mu fekk leen bu seeni soxna amee gisee baax dañ koy jël yóbbu ko ci ginnaaw dëkk bi ci ginnaaw kër gi tëj ko moom mu ne jaxasoo leen ak seeni soxna waaye bu leen sëy ak ñoom xam nga gars yi bi ñu déggee loolu lan lan wax waaw kii lan moo ko dal mu lu tax moom mu ñuy opposé wu guddeeg bëccëg mu ne leen yàllaa ma yónni ndax mu opposé leen bu yenente bi dekki woon tey fekk waa Sénégal di feetu 30 ans waaw loolooy li gàcce gi yal nañu yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بوكي ñent mbir a ngi nii yu borom xam-xam yi tënk dina won ne waruñoo bokk benn yoon ci feetu yahud wala feetu nasaraan bi ci njëkk awalan mooy li annahu tashabbuhu bihim ويقول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم njëkk bi mooy kii participer ci feetu yahud yeeg nasaraan yi dafa bëgg a mel ni ñoom yonent bi nee na ku nuru nuru la ay nit yaa ngi ñoom a yem yaa ngi ñoom a bokk atte yonent bi nee na ku nuru nuru ay nit yàlla dekkil la ak ñoom yàlla dekkil la ak ñoom moo tax ñu ne tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuhu bil karimi falahun waa ji amaana sax du ku baax waaye dafa sol yërey ku baax rek mel melokaanu ku baax egsi ci jàkk ji waxtu wi jot éliman tardé ñu ne ko demal ci kanam lu tax ñu wax waa jooju demal ci kanam parce que dafa nuru ku baax rek xëy na sax baaxul waaye jéem a nuru nuru lu ku baax kooku rek moo tax nit ñi yóbbu ko ci kanam léegi nag ñun ñuy nuru nuru jéem a nuru nuru lu yahud yi ak nasaraan yi xoolal tey dëkk bi tubay tubay yi xoolal tubay yi xoolal tubay yi xool leen tubay yi xale yu góor yi xool leen colu xale yu jigéen ñi xool leen ñi gàddu seeni doom dem grand théâtre di jëndi billet xool leen ñooñu allahu akbar ñaareel anna musharaka nawun min mawaddatihim wa mahabbatihim wa yaqulu almawla fi muhkami التنزيل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ñaareelu tomb mooy bu ñuy wan ne waruñoo feetu feet yooyu mooy feetu ku jéem ko bokk ak ñoom mooy day wane ne bëgg nga leen su kenn ñëwoon ci yow ne la yow sa baay rek laa bañ est-ce que di nga feetu ak moom booy reer di nga ko woo koo xam ne nee na la man muhammad rek laa bañ muhammad dong mooy sama noon muhammad dong laay bañ a gis turam laay bañ a dégg muy feetu nga dem ñi di ko jàppale di bokk ca feet ba su kenn ci woon waxoon ñu yéen seen i baay rek laa bañ wala seen i nangam wala seen i kilifa laa bañ wallahi du ñu bokk ak moom añ wallahi du ñu bokk ak moom reer kon lan moo nu yóbbu ci loolu ci bëgg leen lay wone saa yoo demee jaxasoo ak ay nit seen feet nga feesal seen mbooloo yonent bi nee na man kastara sawdaa qawmin fa huwa minhum ku bëril mbooloo ay nit rek yaa ngi mbooloo moomu yéen a yem lanu gëm nga gëm lanu nekk nga nekk yonent bi nee na yeye wane ne bëgg nga leen day wane nga tedd nga ci ñoom te yàlla li mu wax ci alquran mooy yéen jullit yi bu leen jàpp yahud ak nasaara ngeen di xaritoog ñoom mun ngeen dëkk ak jàmm waaye seeni mbir sa yoon nekku ci yàlla subhanahu wa taala def ñu woo mu ne yaa ayuha allazina amanu laa tattaxizu aduwi wa aduwakum awliya tulquuna ilayhim bilmawadda limaza waqad kafaru bima jaakum min al haq yàlla nee na ee yéen ñi gëm yàlla bu fekkee ñi gëm yàlla ñu ngi dégg su ngeen génnee ngeen dem ci juzu ñaareelu juzu ci quran li tàmbalee qad samia nga wàcc jëm suuf première saar deuxième saar troisième saar nga teg ci saar bi yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla bu leen jàpp yahud sama noon ak seen noon ngeen di xaritoog ñoom noonu yàlla ak noonu yonent naka la jullit di xaritoog moom mu ne ngeen di sànnante ak ñoom sax ay kaddu cofeel bu leen ko def lu tax yàlla nee na waqad kafaru bima jaakum min alxaq ndax ñoom li ngeen yor muy dëgg ñoom dañ koo bañ yàlla yonent bi mu yónni ci ñoom ci yéen dañ koo bañ alquran bi ko yàlla jox dañ koo bañ ba pare yéen ngeen dem di fekk di leen fekki kenn mësta gis nas yahud yi ak nasaraan yi di dugg ci ay jàkk di feesal jàkk yi wala di ñëw ci mbiru julli ji déedéet julli ji rek julli ji rek am na benn bis ndeysaan ci feetu Popenguine benn benn waaye mu ne julli di nan nu dimbali sunu sànga si jeexal nañ ko naan nañ ko ba mu jeex sunu feet la du seen feet nan nu dimbali xolal gàcce googu yal na nu yàlla jubal mbokk yi ñetteel mooy annal amra annal iid qadiyatu diin mbiru feet mbiru diine la lan moo tax ñun ñuy feetu tabaski kan moo nu ko sant diine l'islam yàllaa ñu ko indil ñu tax ñuy feetu korité diine la mbir mi mbiru diine la du ngeen yaakaar bu leen yaakaar ne nii rek ci kaw la non année bi jeex na te déedéet année bi année ñan la est-ce que sa année la est-ce que sa année la waaye déedéet julli di dañoo réer loolu moo tax mbir bi mbir mbirum diine la julli ji dañoo xamul dara ci seen diine loolu tax lu yëngatu rek ñu ne fa naam daraame daw parce que xamuñu al amr an al qadiya an al iid qadiyatu diin aqida wa laysat aada dunyawiya kama dallat hadis li qawmin li kulli qawmin iid wa haza iiduna allahu akbar mbir mi mbiru diine la mbiru pas-pas la nekkul mbiru àdduna comme ni ko hadis bi wanee yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gis ay xale yu jigéen ci bisu julli korité ñuy tëgg aboubacar tere leen yonent bi ne aboubacar bàyyi leen tey sunu feet la xeet wu nekk am nanu feet ñun tey la sunu feet bàyyil xale yi allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك سبحانك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله